boo bëggut a doxee da nga dox ndax dana doxloo ñëpp ndax day yemale ànd saa yow mu tàggu kon nag bu demee ba bàyyi ko bàyyi leen ginnaaw na ngeen xam ne am ngeen am ngeenu sas sas yi mooy fa mu ko bëggoon a jëme ci xalaatam ngeen àndoon ko moom ngeen gën caa góorgóorlu ba li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax keroog na liggéey bi gën a yëkkati ko di gën a kawe waaye loolu nag rafet nañ ci jot ndax dañ leen ko fàggul sëriñ Tuubaa leen ko fàggul njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekkoon fàggul leen ko mu agsi fii kon sëñ Yuusu dégg ngeen li sëñ Muntaxa wax keroog ci yow loola soxlawut seen seen nee na fu ma gisee sañ aatu sama xel dem ci sëñ Yuusu fu ma gisee sañ Yuusu sama xel dem ci sañ aatu noonu la ko Cheikh Mamadou Muntaxa waxee noonu la demee ci ñun ñii képp ku la séen rek xelam day jëmm te it wax naa la ko jëm dangay ànd moom ci biir ànd ak moom ci biti ànd ngaa moom ci sa jëmm ànd ak moom ci sa xol ndax man mat naa ci seen ndax mosoo bëgg dara lu ko gàllankoor mosoo bëgg dara loo xam ne lu yàqu ci ab liggéey loo seen lu koy defaral man xam naa ci lu bare bare da ñëw defar ko boole ci ak engagement boo xam ne dangay fàtt sa bopp doo wane sa bopp ci dara loola la kon na nga xam ne ba mu lay doyloo ak di leen doyloo yéen ñii ngeen seq liggéey bi ndax liggéey bi yéen ko bokk yéen ñëpp li Cheikh Maodo Mountakha wax ne njiit mënta ñàkk ndax lislaam ko ak julli ñëpp la ko lis la ko suñu waaye bu ñu àggee ci waxtu julli faaw imaam am loolu mënta ñàkk ndegam yàlla def na nag ab daayira ku ne xam na ni mbaaxoo mboolooy àndandoo dajaloo tànn kenn ne kii lañ jiital ni mu dee woon si yaatu ba agsi ci yow nii Cheikh Mouhamadou Mountakha joxañal la boppam kon loolu doonatul loo xam ne tànneef la waaye ndigalu suñu Tuubaa waaye nag dal nañu dal suñu xel dal na ci yow ndax xam nañ bu baax a ndax xam nañ sa dëggu xam sa posture xam sa engagement sa digg moom ndax lu mës a dugg kat yéen ko daa ànd te kenn mësul jaajëf kenn mësul jàmmoon. dama la daa tooñ sa waxtu ne fu ma la séenee ngir xam sa dogu ak sa pësir ak sa njàmbaar kon nag dañuy soññ daayira bi yëpp waa daara ji yëpp ñu gën a góor rek fexe ba liggéey bii nga xam ne suy aat sumboon na ko ngeen ànd ko yéen ñëpp ba mu agsi fii liggéey bi na gën a bir biri di gën a jëm ci kaw di gën a yëkkatiku di ëpp dogu di gën a am pësir ci jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa te xam ne kat moom de fa mu fa mu fa mu jëm ma nga noppal ndax ku ko ma a xam ku ne xam ne rek waxtaan yi mu doon gën a mujj wax ak sëriñ bi maa ngi koy wax barki démb li ci ëpp jëmatuloon ci àdduna nañu ni ñu bu ñu fàtte ëllëg dégg naa ko ci mbokk Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi fi nekkaloon Serigne di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar ci ne teew naa ba tey mu wax la bu ma fàtte ëllëg moom kon xamoon naa ne mission bi jeex na. te àdduna noonu rek la ñii dañu ñëw ne ba seen mission jeex ñu bàyyi ko ñee ndax kenn saxu kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax a baax sëriñ bi nag nee na nañ seen kanam ne ci seen ginnaaw ne seen rajo ne ci seen càmmooñ lépp lu ngeen nekk mu ànd ànd na ko yéen fas na yéen a gën leen a wéttali ndax loolu la façon ci seen digg moom naka jëkk waaye xam na ne nag la ak Cheikh Ibrahima Fall waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne Ibra Fall waneelu yoon ndax lëndëm bu gën a metti ga amoon kat moo am ndax ka daa gis ba gisatu boobu lëndëm moo gën a metti ki ma sa kon yéen itam da ngeen nekkoon ak moom mu ne ci seen biir ngeen di ko wéttilikoo di wéttilikoo Sëñ Tuubaa ngeen ba jëmmam gisatu leen ko kon nag Sëñ Tuubaa ngeen di wéttilikoo Sëñ Tuubaa mi ngeen di wéttilikoo nag lépp lu ngeen fu ngeen mas a àgg rek dooleem ak kattanam moo tax te xam ne seen jëf yi ndénkaan lu Sëñ ndénkaanu Serigne Touba rek la Serigne Mbacke bu soo xoon ndénkaan loo xam ne loxoom ak bëtam du si jóg yomb naa yomb naa tey kon pëstéef bi xam na ni mi sëriñ bi xam na ko yaqinam itam am na ci am na ci yaakaar ci xam ne fa mu bëggoon a liggéey bi dara du ci yàqu day gën a jëm kanam kon ñu ngi yemale foofu wax yi di ko ñaanal rek suñu borom gën a dolli leeram te li mu fi bàyyi itam xolam di ci gën a sedd xelam di ci gën a dal te xam ne loolu rek moo ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa la war mukk. jërëjëf dina baax moom kay na rek dara du soppiku lépp ci dal lu mu wax ñu jëfe ko ci sago nit bu jëlee dara ni sama dund gépp laa koy def foofu mu defee ko sago bu fekkee danaan nag bisub tey rek la koy def bu ko neexee mu xaatar xaatar yi mel ni bisub tey la koy def lii suñ dund gépp sëñ bi lañ nar a nekkal. amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon yàlla nga fi yàgg te na ñëpp tàll seen wax. turu ñi mel ni man ñëpp koy wax fas nañ yéene gën a xam nañ ni mu ànd ak sëñ aar moom لم ينهني إلى دخول الجنة غير بشارات العلي ذي المنة لم ينهني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد أخفى لي السر المسهون الله حبا ولا إله إلا الله هداني الله وإنه البديع منيع وخاتي لدى الجزائر منير تربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان ختمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزاد عن اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين